wa tay ji suñu ñew tay bi liko waral li olof di wax naan lu yëngu lu ne la ko yëngal moko ko ëpp doole ñun dañu nekk ci suñu parti nekk ak suñu chamagne suñu rak ak suñu mak, Ousmane Tanor fe yalna yal na ko bayyi ñu fi ñu nekk ay jirim mu am ku mu ñu bayil ci kaw ki mu ñu bayil nonu nekk nañu ay jirim a 100 parce que buñu taxawé sét seetlu ñu le Sénégal, avec le Parti socialiste, cinq collectivités locales dans le département de Mbour ñu c'est une euh, collectivité locale am seen maire à 70 à 13 pour mu quelque chose boo xamante ni amul fenn ci Sénégal c'est dans le département de Mbour ngay fait nga fekk ko fi ñun taxaw nañu seetlu ñu xamné ñun cëralewuñu joxuñu ñu cër joxuñu ñu gëdd ñan ñi ñu andal ci dans la coalition du Benno Bokk yaakar kon ñun tey jii suñu taxaway fi tey jii mooy taxawaayu responsable taxawayu maturité waxuñu goor waxuñu jigéen waxuñu ma Samba waxuñu ma dem mais suñu situation moo ñu préoccupé parce que bo nekkee ci département ñu duggal ay nomination peut-être demandé wuñu kenn ñaanuñu kenn mais on a travaillé à la sueur de nos fronts kon bu ñuy ay postes de responsabilité war nañu bàyyi xel ñun ci suñu parti parce que nous on a des cadres on a de très hauts cadres waaye ouais. et des cadres qui préfèrent nekk dans l'ombre nekk dans le silence parce que lan dañu and ak sen ngor dañu am éducation de parti dañu nekk ak sen discipline de parti mais c'est pas une raison que tamit dañu wara continuer non. donc mu nekk lo xamanteni luñu metti bokku na ci li nga xamanteni motax ñu taxaw fi tay ji def suñu assemblée général wax ak suñu militant def suñu point de presse yuuxu ñu dégguñu ñu suñu responsable au niveau national ñu xam ne ñun bu liggéey jotee on mouille le maillot mais nag am na lu ñu bëgg APR joxuñu suñu gëdd Sénégal yëpp xam na lan moo xew ci bennoo Bokk Yaakaar la fa xew kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fa xew ñun ci kaw loolu ñu gëmm fatuus duñu xool loolu ndax suñu feu secrétaire général bi nga xamante ni dëddu Bayil nous bàyyil nañu ay nous bugguñu ko rusloo nous buñ ko fekk jee mais nag après joxuñu suñu gëdd effectivement on va oser en dire parce que jigéen boo xamante elle a été conseillère économique et sociale elle a fait 4 ans à cet hémicycle 2017 nous, législatif elle a osé présenter sa candidature mu ne moom bëgg na bëgg na nañ ko ñun ay xale lañu moom mag la ñun ñu muñ ñëpp muñ ñu bàyyi ko mu dem mu nekk ci département bi nekk fi ak ay jigéenam ay rakkam ay naatangoom ah li mu fi liggéey defe naa du ma taxaw fii di ko wax jigéen ñi ñoo ko wax léegi ci salle bi kon jigéen boobu bu teeloo tey jii taxawaat non seulement ne dafa bëgg mais ba muy def candidature am defe naa rafetoon na mu woo moromu jigéenam yi mu uuf si département bi ne leen maa ngi def sama candidature mais nous yëguñu sax fu mu déposer candidature Nous ñun au niveau départemental nous déposer, déposé nous mu déposé au niveau national waaw mu avons loo xamante ni ñun rafetluwuñu ko ànduñu ci parce que lu tax li ñëpp wax rek laay wax amoon nañu un honorable des jeunes un responsable des jeunes Maguette Diouf de Joal Nous am Mom Yassine, à deux mandats kon li rafet mooy liggéey bi ñëppay liggéey on travaille en harmonie dañu wara mëna am goor kon ñun waruñu toog ba ñu ñuy tanal un responsable bo xamanteni dañ koy investir dans les listes départementales dañu wara a ñun porter suñu choix defal ko suñu bop liste bi suñu liste le parti socialiste au niveau du département de Mbour amul candidat amul candidat lolu moy wax ji parce que mom elle a été avec des autres ses camarades de parti wax nañ ko fi légui dafa préféré du mooyuñu wan ñu gannaaw dem ànd jeeg ñeneen kon fàllu tey jii fàllu si la bu fekkee ne nërmeelu na ci biir mbuur moom contribué na ci bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax fàllu nërmeelu kon moom nekkul suñu candidate elle est candidate de la paire donc le parti socialiste n'a pas de candidat ñun daal dinañu taxaw suñuy garde on alerte le président de la république parce que mënuñu nekk fii le président de la république le président du Benno Bokk Yaakaar monsieur Macky nous ñong nous alerté ndax nous sommes fi di sommes bu nous la ñu ñuy jox parce que cette fois ci nous joxuñu dara amuñu. en tout cas xam nga étape par étape Nous sommes ñun Nous responsable lañu ñun duñu yegg rek ne dinañu taxaw ñu wax ñu